affaire bi tuuti la tàkk mboom pédophile la. damaa fas yéene ñëw jàmba Dakar pàccal li moom ri ci bi baroon. yow nga ñëw na jël raw gàddu gi moom gën koo dee. sama yaay ba ñëpp dee muñ la muñ dafa war a dégg njaak nangul. je ne t'ai pas attrapé. Bourama ma ne la ñu xëppante atib laa wax atib bi ci boppam daal di ko konte góor yi bolle puuɗe wi o suutataako mo waɗa to hannde himo ɗo janngo himo to faɗi janngo mo ɗo de yow yow yow góor dafa lay para jigéen moo lay kuman njàmbat lu bari li ci kër gi ak wax ju bari ji ci kër gi sonal na borom kër gi mbokk yi ci noonu rek lay doore nuyu képp koo xamante ni yaa ngi toog jamono bi ci biir kër gi jàkkaarloog 2 vi di ko seetaan. am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat tey ci altine ji fas yéene ànd ak yéen comme ni ñu amee habitude di ko def euh, jëmale ko alxames waaye nag dañuy doon rek sant yàlla bu baax a baax moom mi ñu may kattan ba ñu mën a dellu siwaat fii fas yéene àndaat ak yéen waaye itam di julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur bu wér a wér gërëm sunu la waaye gërëm leen yéen yi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fasal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladie tëdd ci hôpitaux yi di leen bàyyi xel bu baax a baax ak képp koo xamante ni yaa ngi wéyale sa jàngoro ci sa biir kër ñuy ñaan rek yàlla na buur bi yàlla fëgg sa bopp ba nga mën a delluwaat ci say activité ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëb yarukaay yi saa su ne ñu di leen bàyyi xel di leen ñaanal yàlla génne leen ci bërëb yooyu dara bañ leen faa dugalati waaye saa su itam ni ma koy waxee rek eh, ñuy jaadu ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ni ñooy sunuy way dawlu te ñun ak ñoom ñu nekkandoo woon ci kaw suuf te ñoom defuñu yàlla lu tax ñu jiitu ji ñun ñi fi desandi as néew itam defaluñu yàlla lu tax mu bàyyee ñu fi dafay jaadu li ñu am ci ñun ñu di leen ko jox saa su ne muy di leen ñaanal rek yàlla àtte leen ci yërmandeem jégal leen seeni i bàkkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe ci darajee sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla defal bépp néew yi nag moo xam ku jiitu ji moo xam ko mujje ba ki fa dem ci léegi ci suba sax ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla booleeg malaakam yërmande mu teeru ko waaye itam tàbbal ko ci àjjana yi gën a kawe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 teg ñépp ci yoonu mbaax yoonu njub yoonu siraatal ma ëllëg bu ñu dajeeg borom bi mën a am ngërëmam yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal bépp kilifa diine boo xamante ni yaa ngi ci àdduna bi kilifa aada yi ñu bàyyi leen xel bu baax a baax sargal leen waaye itam ñaanal leen yàlla projet yi yàlla sottal ko yàlla def jàmm ci réew mi def xéewal def sutura ci réew mi ndax nag faaw ñu dooree ko ci jàmm ji ndax nag euh, lu waaye di sàkk lu ne te amoo jàmm mel na ni amoo dara kon yàlla yàlla def jàmm ci réew mi jaarale ko ci seen loxo xewal geeg sutura gi yàlla na saawaan baawaan lépp loo xamante ni itam yaakaar la di ko am ci ñoom ñu ngi ñaan ci kattanu borom bi yaakaar jooje yàlla bu mu tas naka noonu itam ñuy ñaan ci yàlla yàlla dëppe seeni xol ñoom ñëpp ñu nekk benn moo xam ñi ci nguur gi ba ñu ci kujje gi ñoom ñëpp ñu ngi àndandoo di leen ko ñaanal ndax itam nag wat gaa la te lu kenn mën ñaar ko ko dàq te gannaaw ña ngay bàkku nekk ca kujje ga di wax ne mën nañoo jëme réew mi karam ñoom ñëpp nañu àndandoo soobu ci liggéey bi ci jàmm ak salaam ci xol yi tàppoo nekk benn su ko defee réew mi mën a dem ci kanam naka noonu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñi nekk ci réew mi waaye itam di bàyyi xel ñi farewoo ci dendu Afrique bi rawatina ni ma leen ko waxee rek lu def waxulu ay di njàmbat jamono bi euh, fa ñu jàpp du fenn fu dul Côte d'Ivoire ñu ngi ñaan rek yàlla mi nga xamante ni mooy borom jàmm te ko mu may jàmm nga am jàmm yàlla yàlla def jàmm ci Côte d'Ivoire defal ko doomi réew ya fa nekk waaye itam def ko ci dendu Afrique bi yépp naka noonu itam def ko ci ñi nga xamante ni dañoo préféré émigré ci ci nit ñu weex ñi ci réew nit ñu weex ñi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel waaye itam di ñaanal yàlla yàlla sàmm leen yiir leen musal leen ci musiba ak bala kasara ak gàtt fan ak déggu ñaaw yàlla mi nga xamante ni moom musa mën a musal ab jaam cim ndog yàlla na yàlla àndandoo ñu ñun ñëpp musal ñu ci ndog te kenn ku ci nekk rek la nga nekk di ca yëngu positivement yàlla na ci yàlla yàlla defal nga yokk ci ba yëg ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu siwaat nag ci li nga xamante ni mooy sunu émission kër gi comme ni ñu amee habitude di ko def sa su ne altine bu nekk nag ñu yëkkatil leen tomb waxtaan boo xamante ni dafay ñeel jafe-jafe bu doomu aadama bi di dund moo xam mu nekk ci biir kër gi moo xam mu nekk ci mbedd mi moo xam mu nekk ci place liggéeykaay bi moo xam sax mu nekk koo xamante ni dañu ko naawtal mu far daw dem benn yoon yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni nag am ngeen habitude di ko seetaan ci biir seen émission kër gi loolu tax bi ñu yëkkatee ni ki talaata bi ñu génn àllarba alxames ñu jàpp na ñetti fan doyu ci ndax bari na ci ñoo xamante ni tey ñu ngay joytu mbir mu mel noonu mu mel ni que nag mbir mi ci wàllu boppam élément bi dama ne woon duñu ko delloo siwaat waaye nag euh, ko delloo siwaat ndax dafa am mbir yu bari yoo xamante ni dafa feeñaat ci biir mu mel ni que ñaari parti yépp euh, ku ci nekk déglu nañu la ki nga xamante ni itam moom la ñu wax ne moom moo nawtal xale bi nit ki alxames ci ngoon ngoon gi yëpp sama kër la ko def ñu toog ma nag moom seq waxtaan la ma wax itam ma téye ko la ma ab géewalam wax itam ma téye ko waaye itam ki nga xamante ni itam mooy yaay xale bi te doomam nekk tey ci mbedd mi gisatuñu ko déggatuñu ko bari ci ñoo xamante ni tey ñu ngi woote téléphone di dëggal li nga xamante ni moom la xale bi dund ci wàllu ndawtal ci wàllu liggéey yu ñu ko daan jox bu mu tëlbati boppam tey dem nekk foo xamante ni xëy na ndeyam gisu ko baayam gisu ko loolu nag ay leeral la yoo xamante ni dinañ ci ñëw ci sunu biir waxtaan waaye ni ma leen ko diggee woon rek dama leen waxoon ne leen ñi kii altine incha allahu taala euh, fee bi nga xamante ni moom moo am du ne cas bi moo ñu tax di wax certes moo ñu teg ci yoon bi waaye nag bari na ci ay kaa yoo xamante ni tey ñu ngi koy dégg ay nit di jànkonteeg ay mbir yoo xamante ni doy na waar doy na waar gu toll nii jàddu nañu waxtaanaat ak suñu mbokk waaye tam ubbiwulaat leen itam téléphone yi ngeen mën ci jaaraat kenn ku ci nekk la la ki sa biir xol nga yebbi ko kenn ku ci nekk exemple ba nga ca gis ci lu wàllu mel noonu nga yebbi ko su ko defee ñu mën a waxtaan juboo delloo siwaat xel yi te xam ni kat jamono bi jeex na jeexaay boo xamante ni kenn ku ci nekk war ngaa mën a tal lu la jëme kanam war ngaa mën a tal lu la yóbbu ca kanam euh, muccal la ak sa njaboot waaye nag dugal njabootu jàmbur itam dafa nekk loo xamante ni jaadu nañu waxtaan ceeg nit ñi ngir ñu war cee mën a tegg seen tànk loolu moo tax dañuy daal di dem régi rek ànd ak ki nga xamante ni mooy maane saw euh, Papis ñoom ñaar ñëpp ñu nga fa euh, ñu dégtal leen seen élément ñu dellu siwaat àndaat ak yéen wax leen tolluwaay bi yaayu Chérif fam ca toll ñi nga xamante ni woote nañu la ñu wax waaye itam ki ñu jàpp itam ne moom moo def loolu xale bi ba mu ñëwee sunu kër itam lan waxtaan ak moom itam loolu yëpp dinañ leen ko dégtal lépp nag ñu ànd ci ak yéen ci téléphone yi ngeen di jaar war ci mën a indi seen xalaat ci tolluwaay li ñu yëkkati woon semaine bii passé waaye itam ak li ñu dëgmal semaine bi nga xamante ni moom la ñu nekk ci kàttanu borom bi yàlla nañ ko yeggale ak alhamdulilahi rabil alamin waari si ñu seetaan élément bi te ñëw. ku ne maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di dolli di sant yàlla ak yonent bi dama am nag métit boo xam ne dama bëgg popp bi yépp dégg ko ndax kaa boo xam ne la lu ma métti la ma koy xalaat guddi ak bëccëg sama taaw bu góor la ñu def lu métti mu muñal baayam muñ bu set wecc mu am na koo xam ne daf ko def lu métti muy sama taaw bu góor xale baa ngi tudd Chérif El Walid Fall ñu tuddee ko doom yi Cheikh na Cheikh Sadibou euh, ndaw si sunu ñaari yaay yi ñoo doonoon ay collègue sa diggi kaw la ànd ànd bu rafet mooy juddu fekk leen ñuy ànd xool collègue bu rafet yàlla nag mooy def lu ko neex kenn ku jigéen ki moo doon tollu ba silis di may oo par téléphone benn bi man la jot mu ne man naa wax sama doom bu bi mu ñëw uyi si ko Dakar mais man may yaakaar ne pour day dimbale xale bi may yaakaar ne pour kóllëre kóllëre tax muy oo xale bi deuxième fois bi ñu remarqué buy ñëw daf koy oolu bu waree ñibbi joxaat xale bi paas ne ko ñibbil Kaolack te du ko jox dara deuxième fois bi mu fekk ma ma dem Banjul mu jotas na nga jox xale bi paas mu dem uyu ju ko ndax ñii suñu kóllëre lañu xam naa dafa bëgg dimbale xale bi deuxième fois bi mu jot sama jëkkër sama jëkkër joxaat paas xale bi ne ko demal wuyi sa tanta toll na ba Genève oolu la fekk maa bàyyil sama jëkkër kaddu boobu dama yaakaaroon ne day dimbale xale bi pour pour mu tukki xale bi bu mu ñëwee tamit loolu la ko wax ne ko dama lay yóbbu nga tukki ndax kóllëre bi démb la sa maam la woon ak sunu yaay sa diggi kaw la xale ba gëm mu wan wan ko beneen vie mais pourtant xale bi am na sax ñu ko doon fekk sa biir kër ga di koy oo ne ko demal ñibbi kóllëre bi démb la sam yaay moo jël sa tànk maam te bëgguñu kóllëre bi yaa lépp lu mu la wax suba ba jant bi so nekkul dëgg mais xale bi mënul woon gëm ña fa doon garde oo nañu xale bi ne ko ñibbil ñun xam nañu maire bi lu ma la wax suba ba jant bi soo waxul dëgg daf lay nax mais nag peuple bi maa ngi leen di wax leer na damay gàttal wax ji xale bi bu mu ñëwee daf ko gëmloo woon tukki ba mu mandi ndekete daf ko doon nax daf ko tegoon këram bu amee ay gàllaajam xale bi dem di suuli si armeel yi bu amee gàllaajam di ko koy jox muy suuli boori camp liberté 6 di koy yónni géej naan ko tànqal ma ndox mu fuur mi di koy jox dem na ba jëndal ko vélo bu xëyee jox ko téeméer ne ko wëral ma Dakar ba mu daj téeméer bi nga utal ma ko dërëm ba mu mat nga xale bi fas ko si mbus indil ko instant bi ko ndaw si ooyee nag la sama doom yàqu si diggante bi preuve bi xale bi moo ma wax xale bi moo ma ne sama tante daf ma doon sulloo gàllaaj yaay instant boobu ma jël nag wax jooju def def def so xale bi instant boobu la sama doom yàqu xale bi nangootul toog benn waay moo ko gis niwaat di bu indi ko waa jooju nag may dollu koy remercier waa ji moo ko jëlee ba niwaat di doy na waar ci li nga xamante ni moom la yëkkati woon euh, niki semaine bi ñu génn mu nekk nag euh, mbir moo xamante ni euh, yombul wax naa leen ko léeg yëkkati loo xamante ni dafay dem ba dépassé ñu léeg yëkkati loo xamante ni danañu dem ba duñ ci mënati dara ndax nag côté boo ci féete rek da ngay yaakaar ni foofu la dëgg gi nekk waaye nag ma wax leen rek yàlla mooy ki nga xamante ni moom moom dëgg yàlla mooy ki nga xamante ni itam moom mooy mujje lépp te it mooy atte ni nga xamante ni noonu laa ko waxee soxna si euh, ginnaaw bi mu ñëwee sama kër moom mi ñu tuumaal ne moom moo doon def loo xale bi ay liggéey mu jàpp itam ne kóllëre la goo xamante ni gu yàggoon la seen diggante bëgg a jàppale itam xale bi tax na daan na def ci moom nangam ak nangam ak i nangam waaye daawu ko liggéeyloo daaw ko jox ay liggéey daaw ko jox dara ndax yor nag njabootam su amee lu muy liggéeylu ak njabootam la koy jox waaye nag euh, nekk na ko xamante ni am na naqar tey tuumaal nañu ko. te li ñu ko tuumaal ci kanam borom bi rek lay setee ma ne ko foofu wax nga paquet du dëgg ndax yàlla mooy ki nga xamante ni moo mën a teggi tuuma kon yàlla la yàlla teggil tuuma ci kaw bu fekkente ni noonu la demee euh, ki nga xamante ni itam mooy ab géwalam mooy ki ñu tuumaal ba tey woon na ma téléphone euh, wax ma lu leer xamal ma ne ma kat kii ñii famille lañu buy jàppale ay nit euh, di dimbali ay nit ñuy dem ak ñëw defuñu loolu wu ñu kenn loolu itam kàddu la yoo xamante ni dañ koo téye waaye itam ba tey itam ki nga xamante ni itam mooy yaayu xale bi te toog wax bi ñu ko jotee itam waxtaan nañu ak moom ndax euh, ki nga xamante ni moom mooy soxna si ci wàllu boppam bi mu ñëwee kër ga bi ñu waxee ak moom ba pare dinañ ko ne dinañ ci defaat ay gëstu mu xamal ñu itam ne papay xale bi ci wàllu boppam euh, du wax waaye nag finalement mujj nañoo jot papay xale bi moom xamal nañ ñu ne fi nga xamante ni fa la doomam nekkoon daal foofu la yàqoo te it li nga xamante ni moom la soxna si di wax ak ñun wax ko ak moom bokkewul ak lay la muy defee kon ba tey moom tamit daf ko wëlbati ko tuumaal mu mel ni que ay dëkkandoo ay doomu ndeyu ñi nga xamante ni mooy yaayu xale bi toog di wax ay xarit ay soppe ay ñañu bokkaloon koñ ca Kaolack amul euh, bi ku ku mu mënti doon rek koo xamante ni yëkkatiwul téléphone wax ak ñun dëggal li nga xamante ni moom moo nekk ci mbir mi kon euh, bu ñu jëlee mbokk mi ci ligne ba pare soog a ñëw ci li nga xamante ni rek danañ ko tegaat ci seeni nopp mbokkaloo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna May ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi bu baax baax de. ñu ngi delloo ziar bu wér a wér sëñ bi tur bi naka la ak fooy wootee. man la Mor Mor Gueye maa ngi woote eh, da nga bëgg a participer sëñ Mor. waaw bëgg a dugg si kii bi ci émission bi. ayca bisimilah yow rek la ñuy eh, sant yàlla bu baax sëñ Mor. ñu ngi leen di dëgg la El Hadj ngi leen di bëggee yéen tamit. di di rafetlu liggéey bi kontaan nañ ci liggéey bi lool. lool lool lool. merci beaucoup yéen a ko moom. xam nga émission xam naa li ma ci wax bëriwul quoi maa day fàttali rek fàttali sama bopp dina fàttaliwaat. Mm-hmm. maa dama àdduna ma li ma li ma wax rek problème àdduna ñi maanaam nit ñi yëpp pour mën a ñàkk a dellu ci suñu boobu rek moo tax problème problème nekk ci jullit ñi. surtout surtout. ñàkk a dellu suñu boobu rek waaye yaakaar naa buñ jëlee tënk ci siraatal mustaqiim dëgg ci li yàlla ci ci ci li yàlla te yaakaar naa problème du du bëri mais dama yaakaar ne jullit ñi moom dina wàcc seen ànd dem jéggaane yi ànd jàmbur quoi moo tax problème yëpp dal ci ñun. waaw dina wa dina wa maanaam bàyyi moom dem jéggaane jëlee fi jàmbur loolu moo tax ko jafe-jafe yi ak ak kii yëpp la dëgg la moo wax. te ñun dina war a xam ne ay jur ay jur ay bokk ci xeetu kii naa maanaam sallallahu alayhi bu ñu amee ci kaw suuf maanaam de question ay yëngu-yëngu damaa indi pour ñu jàmm ko pour li jël ëllëg fa jëm. dëgg la waaw sa àdduna léegi dama dem ba nit ñi moom léegi dama yaakaar yaakaar bi ci abadan day ma tapp moo tax nit ku nekk nekk ci yoon nekk. Hmm, doy na waax. te damaa sax nee naa ne bisum ñu ne bis boo xam si yàgg yàggul yàggul bis bisum ñu ne boo xam si yàggul. te bis boobu nag ku ne fàttali ko loolu neex mën def loolu neex mën def. dëgg la dëgg la Mor. waaw sa sa sa yàggul yàggul dara bisa ñëw. waaw loolu nit jullit bi war na ko xam baax a baax a baax a baax. del si del si siraatal mustaqim nekk ci ndigal bàyyi tere mm-hmm. rek àdduna jeex na tak problème àdduna yi nit ñi di karang-karangee ay léb yëpp di karang-karangee yëpp ay nax la daw ba dee rek daaw ba dee sa doo ko jël mukk ci àdduna dëgg la doo ko jeexal de mukk ba ba juddoo ba léegi ñu karang karang di yëngatu sa sa mun sa mun a tax ngaa ñu nga bëgg dëgg la ba mun daal li nga bëgg yaakaar war a fas yéene kenn la jëriñ ëllëg mu yemal xiyaam wallahi wallahi waaw wala wax naa ko sama mbokk yi ne la nit ñëpp daal ñu gën a góorgóorlu tënku dëgg la. allo. allo sëñ Mor yaa ngi perdre réseau de déplacé wu tuuti. allo. waaw yaa ngi dégg allo. waaw maa ngi lay dégg bu baax a baax sama sëriñ. yow yow moom nag yow moom yow moom dama lay sant yow dama lay sant bu baax a baax xam ne émission bi ngay def moom dama la ñaanal suñu borom yokk soo ko def. amiin amiin Mor. parce que yooyu moom dafa nekk trop na yàlla la yaakaar ndeysaan kontaan nañu Mor. waaw yàlla yow moo tax ma jënd carte bi. am na solo am na solo yàlla nañ bokk ñaan gépp waaw yàlla na bu dul dëkk yàlla na ay salaay salaam. amiin amiin amiin. jërëjëf sëñ Mor. jërëjëf. ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk moomu sëriñ Mor euh, woote bitim réew. ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ni yàng bitim réew toog jàkkaarloo ñun di seetaan may wax ne def leen ni moom rek jaar ci bunt bi dugg indi seen xalaat. ci li nga xamante ni moom la ñuy yëkkati di jëm ci wàllu def-def ak ñoom seen ak euh, li nga xamante ni rek gis nañ ko ci jamono bi sacrifice alalu àdduna jaral nit ki lenn li ba sóoratul digganteem ak boromam te nag loo ko wax mu fëgg dënam ne naa des ak sama borom euh, li ma ci yitteel rek mooy sama tey na neex mu mel ni que tey nag nekk diir bu gàtt boo xamante ni ndax jar na doomu aadama bi war a mën a yëkkati lu ñaaw di ko teg euh, ci moroomu jullitam rawatina jeg ji sëy ci semaine bi ci lañuy nekk ci ñoom ñu jël kooku ci liñ bi allo allo oui. wax ñu koy jéglu bu baax di ko ñaan na jéemaat euh, indi xalaatam ci li nga xamante ni moom la ñu yëkkati may wax rek ne euh, thème bi nga xamante ni yëkkati woon nañu ko muy boobu boobule dafa nekk élément boo xamante ni il fallait que ñu delloosiwaat ko pour am tuuti rappel euh, ci yéen. Euh, rappel bi nag du lenn lu dul wax leen rek euh, bi nga xamante ni pare nañu alxames ki nga xamante ni euh, mooy la ñu tuumaal moom ci wàllu boppam ñëw na suñu kër toog nañu waxtaan ak moom ndax nag émission kër gi léeg-léeg yëkkati loo xamante ni certes télévision bi lay doon waaye dina ci bari loo xamante ni démarche lay doon ñu di ko dox ginnaaw kër gi mu nekk nag mbir moo xamante ni moom jàpp na ne dañ ko tuumaal ndax xale bi wérul ñu jël ki ci ligne bi allo. allo waaw Adja waaw waaw man la Ndeye Sow maa ngi wootee Bamako Bamako Ndeye na nga def waaw maa ngi ndey Ndeye naka waa Bamako waaw ñun dañuy participer ci émission bi ay ca Ndeye yow rek la ñuy déglu waaw dina xamal ne daal man dama jox yaayu xale bi toor danga jox yaayu xale bi toor waaw ndax doom daal dañ koy téye doom da koy téye waaw doom dañ koy téye di ko sàmm di ko gérer waaw ndax doom loo tuuti tuuti tuuti ak loo néew néew doole. Hmm. doom dañ koy téye teg ko ci sawar di ko jox say jikkoo. di ko yar ci ngor di ko yar ci bërilu bañ koo puus ci kenn. Hmm. waaw lu doom aadama am am am am alal bu ci wékk wékk sa xel lu mu dem dikk bu ci wekk sa xel. kon moom erreur bi mu def daal mooy li mu jëloon doomam nampatal ko ci kële ndax alal ji. waaw li mu doom ma jëloon doomam di ko jox koo xam ne yow bokkoo moom dara même boo bokkee nit. bu nekk sa bopp sax. Hmm. na am ay limite te jikko bokk waaw na ay limite hmm. waaw man daal man loolu laa doon participer ci thème bi ci di ko ñaanal yàlla yàlla jot ci njabootam. ndey li nga indi am na solo. waaw doom daal duñ koy téye ma ko def Sénégal gépp doom duñ koy téye. di ko def hmm. say jikko. mar naan ko mu tax a naan petit di ko jàngal jikko yu wóor te gore. waaw ndaxte loo sëy sëy sa boo ko sëy dina hmm, day niil boo moytuwul. waaw maa ngi nuyu nag Sénégal gépp. ñëpp a yor doom ñëpp ngi lay fay ndey dañ koy yokk loo mën a mel ak a mel sa dëgg la. waaw. dëgg la ndey ñu ngi rafetlu nag sa sa sa toogaay foofu. ndeysaan. waaw ndaxte yaa ngi yee nit ñi bu baax a baax a baax a baax. am na solo ndey. di nuyu waa Sénégal yëpp nuyu waa Kaolack sama Kaolack laa dëkk. waa Kaolack nga lay fay di nuyu sama yaay Mariam Xore. ndeysaan. di wax ne ndaw si maa ngi bokk ak moom naqari bu baax a baax a baax. dëgg la. doom daal dañ koy yar ba mu doyul. Hmm, am na ci solo de. waaw doylu daal mooy war te mooy lépp te xale boo ko jàngalee foofu fu mu fekk muy taxawaa lu ci ko wéy nit ak ko bëgg lu nit moom. Hmm. du masam boore ba mukk ci àdduna. dëgg la. waaw maa ngi baalu àq nag ba waxee loo xam ne du noonu. jërëjëf waxoo dara lu ay ndey lu dul teg ñu ci yoon rek nga def. waaw waaw ñun nag ñu ngi lay nuyu samay rakk maam bu soo ndey roqee sow sama borom kër Ibou Sène ñëpp a ngi lay nuyu. ñoom ñëpp maa ngi leen di fay ñu ngi lay bisu bu baax. maa ngi leen di bisu bu baax a baax. jërëjëf kontaan naa la maa ngi doog a dugg ci thème ndax thème bi dafa ma naqari ndax njaboot dafa neex. dëgg la njaboot dafa neex. waaw waaw maa ngi doog a dugg tey ci thème wax dëgg yàlla. jërëjëf am na solo ñu ngi nuyu waa Bamako yëpp. ok ciao ciao ciao merci beaucoup ciao ciao ñu jaajëfal ko bu baax a baax jaajëfal képp koo xamante nii yaa nga Mali di daan sa dole rawatina jigéen ñi maa leen di bàyyi xel bu baax a baax waaye nag mu wax lu am solo doom da nga koy yar ci doylu boo sonnee yaral ci doylu boo jekkee yaral ci doylu ëllëg fu mu dem doylu lay mën a wane teyit nag fëkk du ko yomba yóbbu ma ne ko wax nga paketu dëgg bari na ci ñoo xamante ni léeg dañuy ragal ñàkk damaa ñàkk nangam damaa ñàkk nangam sama wala réew sàngam war na maa mën a dimbali war naa mën a jàppale samay doom war naa mën a yar samay doom kon naa jël sama doom nàmpatal leen ci ñoom léeg sax nga jël sa doom jur ba mu yeggal jël ñëpp tasaare kenn ku ci nekk nga duddatal ko fenn ndax risque bu yor njaboot moom nga attanul ndax itam euh, wëlbatiku itam ñàkk ga ci kër ga itam moom nga àttanul ba tax da ngay daal di jël njaboot gi yëpp tasaare kon bu boobaa njaboot ga itam lu ñu mënti jànkonteel yow yaay ki nga xamante ni yaa ko def wax na dëgg bu baax a baax ñu koy nuyu di ko jaajëfal nday eh, ndeysaan téléspectateur eh, kër gi xalaat yu rafet rek la ñuy indi maa ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax di kontaan ci ñoom waaye buntu baa ngi noonu may wax rek ne soxna si ci wàllu boppam moom tuuma la wax ne moom lañ ko ja def teyit it bi dafa nekk cas boo xamante ni c'est pas la première fois mu jaar ci télévision ndax ñi nga xamante ni eh, ñooy seetaan canal info di seetaan gañ sëriñ Guèye itam cas bi jaaroon na fa ma koy nuyu au passage bu baax a baax a baax moom gañ Série ndax itam nag euh, ni ma leen ko waxee rek investigation lay laaj dem nañu ak gañ Série waxtaan nañu ak moom lam ñu wax mi ngi ñu téye ñu jël kii ci ligne bi allo. allo waaw. na def sant yàlla bu baax. alhamdulilah. Ah. man la Fina. Fina maa la avocat de risque bi. ndeysaan noo def. maa ngi fi rek alhamdulilah ni ko bëree bi. bébé mi ngi ci jàmm alhamdulilah Fina. alhamdulilah. a ay ca Fina fan ngay wootee. maa ngi wootee Suède. Suède. waaw Fina ay ca. waaw. Mm-hmm. fekk man li ma bëggoon wax rek moom mooy ci génn léegi li mu wax. Mm-hmm. parce dëgg la nit buñ la wax ne damay dimbale sa doom pour mu dem Europe rek. Mm-hmm. dëgg la. parce que bu ñuy waxante dëgg parce que kër gi ñun ñëpp a bokk waaye hmm. bu ñuy waxante dëgg rek te yàlla tax. te yàlla tax mooy yoon dëgg ñu fi indi. waaw. Hmm. parce que ndax bu ñu la nee jox nga sa doom dama ko bëgg a dimbale Europe. bu ñu mayee à chaque fois bu ma loolu laay wax dama naan fépp a metti. fépp a metti dëgg la. bu ñu ko mayee bu ñu la dimbalee ku la dimbale ba mu ñëw Europe itam. Hmm. boo amulee këy. ñu ci lan la lan moo taxoon nga ñëw parce que dinañ la balaloo. dañ la raxas loo dañ la toog loo di ko jëli seen doom yi di ci la di ci la jàmm njëkkee sax ñoo doon lay jëm kenn ñaareel ba moom moo dina doom boo ko yoree da nga koy yedd ci àdduna naan ko ku la jox nangam na nga bañ ku la jox nag demal nga defal ci loo xamante ne jaaduwul na nga bañ bu bu fekkee ne dañ la ko def bu ko sax xale yëpp nag laay wax bu ko sax nangu loolu def sa yaay nga wax ak moom dëgg la man bi ma amee douze ans. Hmm. dafa am benn mère boo xamante xam nga man jàng ma xet. Hmm. sama muram yëpp dañ daan dem jàngi man mbali si tubaab yi rek laa daan topp. ndeysaan. yàlla benn bët benn teg ma bët rek. Hmm. boo ko si suñu koñ parce que dugg ko tudd su ko juddoo. mère bi ma topp ma topp ma temps yooyu ruqu shérif moo xewoon. ruqu shérif. waaw ruqu shérif dem. ay services ak topp mbañ ci tubaab yeeg bi ñëw ba ci man jox ma benn sëriñ jiitalukaay dafa ma tudd ci lu demee sëriñ jiitalukaay yu yàgg yi daan wàpp dama ko fàttali. jox ma ko ne ma dama bëgg nga dem ba ci biir nga defal ma ko ci benn paxu jaan. nga defal ma ko ci paxu jaan. waaw. est-ce que. mu yëkkati ñaar fukk jox ma. ne ma léegi demal léegi boo demee léegi man maa ngi taxaw fii di la xaar kon man dama yàgg muus jàng mu waaye dama yàgg muus si àdduna. Mm-hmm. ma dem a dem ba ci benn garab daal di koy daal di koy gas ba mu ko côté Maris noonu ci kaw gas ko ba mu ko daal di koy suul sër bi. waaw nga ñeeku ne ko def naa ko. moom mu nga ñeeku ne ma waaw kon baax na mu ma waaye du ko wax kenn de ma ne ko waaw dama ko wax kenn. Mm-hmm. ma bàyyi ba mu sori ma retourné waat ba jëliwaat sër bi. nga dina ko sama lu ko waxee fu may wobbeeloo noonu ngoog ba mu dëgër. waaw. ma ñëw ba ci sama yaay wax ko ko yan ko sama yaay. sama yaay la ma jox la sëñ bi ma jox ko ko. mu def ba seen kër nga ko toj loolu sëriñ sëriñ ku jëm la woon sama yaay def ba foofu ñu ne salaamaaleykum ma ne maaleykum salaam mu ne ku moom fii. ñeent bi ba dugg ci biir néegam jàpp njàmburam. xam nga sama yaay waxul dara man tey waxuma dara léegi wut jigit ne ko lii sama sër la soo ko jëlee mu ne ko ci mbedd bi laa ko fal ñun ñu ñoo wéññeeku li ma lay wax nii sama yaay rek laa ko def nekk la ak yow def ñu ci tey xale dañ koy gis te du ko pusloo muy xale bi buñ ci joxati dara ne la dafa du suulal ma na nga bañ parce que ak bayan armèr kenn du ko yab ndege ndege de sëru wu jëm la woon sëru jëm la woon sëru jiitalukaay moom mooy deete yi xewoon yi la loolu du ma ko fàtte est-ce que. te itam xëy na xëy na kenn bi sensibiliser xale bi mu dem waaye yam ko doon jox moom nga bëgg ci bopp te almeer mbayam kenn du ko yab. déedéet te bu tër nga bu jox ngay daw bañ a jege almeer waxatuma laa ngay dafay xaaji guddi dem di yëkkati ay bopp ñëw di fa suul. denc loolu bi yàlla la de foofu de yàllaa ko moom. Ah, ah, ah. almeel almeel kenn du ko yab de moo tax dafa ñëpp nañu bàyyi suñu xel te ñu yedd daal suñu doom yi hmm. ku leen joxati leneen maman diw nee na defal ma na nga la def dëgg la waaw kon tey maa am na solo ngay ñaanal di ñaanal waa 2STV yëpp ca kaw ca kanam sa lu baax ndeysaan ñoom ñëpp a ngi lay fay waa kay merci jërëjëf suñu avocat doy na waar ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, moom avocat 2S euh, woote fële ca Suède ñu koy nuyu bu baax a baax waaye itam seen te téléspectateur la mu nga foofu ca euh, Stockholm ñu ngi koy nuyu bu baax di kontaan ci moom dégg ngeen ko ni nga xamante ni noonu la ko waxee ay mbir la lu fi yàgg la jël ñaar fukki dërëm ak sa sëru njiit lay wujj jox xale ne ko demal defal ma ko ci paxum jaan lan la ci jublu ndax pour mu bañ a jur la ndax pour mu bañ a wér la ndax pour mu bañ a tekkee ci biir kër gi la ndokete dafa nekk ay mbir yoo xamante ni yu fi yàgg la xëy na naam ah, ñàkkoon fu ñu ko jooytoo loolu moo taxoon waaye nag euh, doy na waar nañu yaraat xale yi wax na dëgg ndax doom mën nga ko yar yar boo xamante ni fu mu génn fëkk du ko mën a yóbbu tey it lu ñu ko defloo itam du ko war a mën a def léeg nag ñàkk euh, ni euh, kii waxoon rek jay na balaam wax ñu koy dellu di ko nuyu di ko ziyaar rek di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam nee na ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam ba jaax daa ceebu tey ngay aña laax day jaaxal mbooleem xarnu bi loolu mooy li nga xamante ni mooy li nekk te it nag ñàkk léeg dina tax nit ki jël doomam bëggal ko réussite ëllëg ba tax mu dabb ko fenn fi fa mu koy dabb ndax ngëneel lay doon ci moom wala doon ngëneel ci moom yàlla rek a xam waaye nag ba tey delluwaat rek fàttali leen rek ne ki nga xamante ni moom la ñu tuumaal daal nee na tuuma la ko teg tey nag bàyyi na lépp ci loxo yàlla ma ne ko télé bi pour ñëpp la kër gi pour ñëpp la dama lay indi teg la nga toog wax ak nit ñi li nga xamante ni moom la ñu tuumaal nag nga ko dundee mu ne mëneew ma wax ma ne ko ah foofu laay mën a yem ak yow xanaa jël li nga wax rek jébbal ko téléspectateurs yi ñoom ñoom ñu jugé naka lay demee ñu jël ki ci ligne bi aloo allo waaw allo waaw soxna si mën nga yëkkati kàddu gi tuuti. yaa ngi wootee Touba. Touba waaw. waaw da nga a participer. ay ca yow rek la ñuy déglu. mais ki nga xamante ne man fii woon ba élément la noonu rek. ah mais comme que dafa ko tax comme que dafa taxal. allo allo. waaw soxna si yow laay déglu. Euh. dama ne. waaw. comme que moom si nekkoon si nga xamante dafa nekkoon ci émission bi comme que dañ koo taxal. Hmm. non nag daay nekk ci loxo yàlla rek xam ne mbir yi moom yàlla rek moo xam parce que boo déggee ki nga xamante ne ni moo fi jógee léegi. Hmm. élément bi. Hmm. li mu wax tamit noonu la noonu na dëgg. ndax comme que tante bi tamit nee na dañ koo agissé. Mm. mais lépp dañ koy bàyyi ci loxo yàlla daal mais li gënoon daal mooy mu toog xamal ne xamal nit ñi carrément ne defu ko. surtout. xam nga waaw loolu mooy gën xamal nit ñi carrément ne defu affaire bi. loolu laa ko wax mais ne na moom mënewul wax. waaw ah, comme que mënewul wax moom nañ jàpp li mu wax rek mais yàlla da ngaa moo xam. yàllaay àttee. mais yàlla mooy àttee. yàllaay àttee bu mooy yàlla na suñu borom jàpp mais émission bi ngay def am na importance trop. ndeysaan merci wax dëgg yàlla. ndeysaan. maa ngi ndeysaan maa ngi nuyu waa Touba Madiana yëpp. jërëjëf jërëjëf waa Touba jërëjëf waa Touba Madiana waa Xayra waa Gédé waa Ndaamaatu ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. di kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax rawatina soxna ñanga bu bu sëñ Abdou Xaadar ma koy bàyyi xel soxna ami sa Tamba ak euh, mam bu sa Tamba ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di kontaan ci ñoom mënewul wax na bàyyi lépp ak yàlla. ma ne ko yàlla ku ko bàyyeeg say mbir danga koy yàkkamti waaye bis bu ñëwee rek nga xam ne dëgg rek kay dëgg te la ci gannaaw dëgg yépp nañu koo jàppee lenn lu dul ay nax kon yàlla na yàlla indi dëgg ci mbir mi nga xamante ni moom moo am waaye nag du tee itam ni ma leen ko waxee woon rek te ndax wax naa ko euh, natt lay doon papay xale bi wax na mbokki xale bi wax nañu fu mu ci doon rek ñépp ñi ngi woote di dëggal li nga xamante ni moom moo am kii nga xamante ni moom la ñu tuumaal wax na ma sëram wax na ma ab géwalam itam wax na ma dañuy méngale rek yàlla rek kay euh, moom dëgg yàlla na ko indi ñu jël ki ci ligne bi allo. salaamaaleykum. Adja ngi maa ngi sant yàlla alhamdulilah. allo. maa yaa ngi wootee. Touba Ndam. Touba ayca yow rek la déglu soxna si. ak mhm. da nga bëgg a participer. ay ci yow rek la ñuy déglu. soxna si moom nañ koy digal nay muñ rek ndax doomu aadama muñ rek la baaxoo. Mhm. met na nag moom comme doonoon yow rek dina mett. dëgg la. nañ koy conseillé muñ nag fii nag lu ne am na waaye yàlla moom ku muñ rek dina la fay sa bu baax a baax. Mhm, man nag maa ngi lay bu baax di la gërëm ndax ku roy si yow rek dina baax. ndeysaan alhamdulilah lu baax rek ngay def te di ko digle. ndeysaan. ar boo commencé sama añ day naaje maa ngi ma ay añ waaye damay xaar ba nga jeexal ma doog a yeggale. yii yeggale leen yeggale leen bu leen tax jëkkër yi dóor ma. lépp ngir bëgg la rek. <laughs> ak bëgg a roy ci yow. maa leen raw maa leen raw. ar boo ubbee émission rek na ngay fàttaliku xam ne maa ngi sa sant bu ci yow. tur bi naka la. Soda Fall laa tudd Ndaam. Soda Fall Ndaam. jërëjëf Soxna Soda. waa kay jërëjëf waay. merci beaucoup Soxna Soda. xaaral ma jox la sama mag bi sama njëkke bi. njëkke Soda ñëwal. allo njëkke Soda noo def. naa def. maa ngi sant yàlla. ñoom lay bëggee de. maa ngi leen di bëggee bu baax a baax njëkkeel Soda. bët bu seet ñu bëgg a dugg waaye li guddee joxe rek. dëgg la tey la ko yàlla dogal. sama yaay sax dalay lay seetaan rek kumpa. bu ko tardé benn bis. nee ko maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. <laughs> ah bëgg dañ la de. merci beaucoup maa gën a kontaan ci yéen. bu ñu fàtteeti. incha allah kenn du leen fàtte. Asu Mbàkke laa tudd. Asu Mbàkke ñu ngi ziyaar bu baax a baax. Mbàkke ah. ba lay sama ca ngay. <laughs> jërëjëf tey soppe bu ñu di fàtte yi. jërëjëf duñ leen fàtte te ñaw bi nag rafet na lool maa ngi <laughs> naa leen ko. Ah. merci beaucoup Soda ah, merci beaucoup ñu jëfal leen bu baax a baax soxna sod ak Assou Mbacké nekk foofu ca diwaanu Touba ay njëkkee lañu ak ay jigéen eh, nee naa leen semaine bi dañuy ñëw ci wàllu woowu ndax nag bari na ci loo xamante ni mi ngi koy booleel ci biir kër gi njëkkee li def na ko nangam eh, wujj wi def na ko nangam goro bi def na ko nangam ndijaay def jarbaatam nangam eh, yaay def doom nangam. Euh, doom joo xamante ni doom yi jiit la la yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni ci wàllu def-def waxoon naa leen ko semaine bi yëpp moom laay yëkkati mais en tout cas maa ngi leen di nuyu bu baax di kontaan ci ñoom di kontaan ci si sama tailleur nekk fële euh, ca euh, passage à niveau bu Tëngéej koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal waaye nag ñu delluwaat ci li nga xamante ni ci la ñu nekkoon mbokk ngi noonu moom tam mu ratal xalaatam mbokk aloo waaw ñu koy ñaan rek na jéemaat bunt baa ngi noonu ñu dugg indi seen xalaat ci li nga xamante ni moom la ñu yëkkati doon rek tuuma lañ ko mën a jàppee nee na ñi ci des itam jàpp ne dëgg la ndax nag wax dëgg yàlla télévision bi yegg na foo xamante ni euh, euh, bokkewul ak xëy na sax fa nit mën a xalaatee te nag lu fi xas jaar ba pare nit ñi danañ ko dégg dëggal ñi dégg itam indi leneen mu mel ne que ñaari parti yépp nag bu ma jàppee rek bu ma defee méngale Euh, yaayu xale bi fi mu toog wax ñawoote wax dëggal li nga xamante ni moom lay dund ñoo ëpp nag téeméeri junni yoon euh, ki nga xamante ni moom la ñu tuumaal metti na ko nag jooy na tuuma nag dafa nekk loo xamante ni euh, bu ñu ko indee teg rek yàgg na ci àddina te it jooyloo na ku ne waaye ma wax ko rek ne ko yàlla mi nga xamante ni mooy leeral yàlla dina leeral yépp donte nag nag fii mbir mi toll moom faaw danañ ko dégtal nit ñi su ko defee mu doon loo xamante ni duñ ci am benn parti bu ñu féeteel ñu jël ki ci ligne bi allo. allo oui. allo waaw salaamaaleykum. waaleykum soxna si ñu ngi ziar tur bi naka la ak fay wootee. waaw bi naka la ak fay wootee waaw. waaw. allo mi waaw soxna si da nga bëgg a dama bëgg a participer. émission ay ci yow rek la ñuy déglu. waa dama doon woote rek pour wax ne toog xam nga dafa jurul rek ndax euh, ku jur doom rek. Hmm. war nga a xalaat sa hmm. ko ko def lu bon. dëgg la donc doomu jàmbur du ko hmm. a pour a ñëw dina tax tamit loo leen sant rek. ñu def ko. dëgg la du ñu bañ dara ci parce yaakaar rek. dëgg la bu fekkee kooku jur na moom. Hmm. bu soobee yàlla ni mu ko yaakaar doomu jàmm noonu la yàlla di ko yaakaar doomu. wallaay jur na waaye ren xam nañ tamit yaay moom tamit dañ ko jur. te ki ko jur tamit dañ la ku nekk rek booy def. Hmm. na nga def rafet fii àdduna. dëgg la. waaw bon nag loolu rek moo taxaw ñu loolu woote. am na solo di la gërëm di la sant te yàlla na yàlla di yàggal sa taxawaay ci émission bi. ñu bokk ko. waaw dina la amiin. allahumma amiin. allez. merci beaucoup au revoir. jërëjëf au revoir bonne journée. Ah, bonne ñu jaajëfal ko bu baax a baax soxna sosu woote euh, gàtt na waaye am na solo ku jur yërëm moom de jur na te it nag nee na lu mun na ma def loo doomu jàmbur euh, mu def loo ko doomam mooy li ko gënal euh, jooy na am na lu ko naqari waat na def na lu ne waaye ni ma leen ko waxee rek kër gi lépp ñëpp la lu ne ne ngi ci biir te it lu ci waay indi lu ne danañ la ko nangul ak téeméeri loxo dégtal ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy war a dégg ñoom ñooy ñii àtte nag eh, ci li ñu dégg ak li am eh, su ko defee rek ñu daal di xaar àtte yàlla bi nga xamante ni moom mooy ki màgg te ku mu àtteel ku ne eh, defe naa ni di nga yaakaar ni yow rek la sàkk waaye nag ba tey rek ci wàllu woowu dinañ ci gën a xuus ndax nag gis nañu ne daal nekk na phénomène boo xamante ni bari na tey ma jële la fii tey ma déjjati la fii tey ma def la nangam ak ki nangam ki nangam surtout nag man maa ngi koy dooree ci xale yi nga xamante ni ñoom laay sëy duma ma jëkkee nag euh, ci yaay yi ndax bari na ci ay fee yoo xamante ni nit ñaa ngi ñëw ci ñun di ñu ko wax sama doom jur naa ko fa ma ko war a juree muy góor nekk itam koo xamante ni tey xalaatoon naa mu aw ma wala xalaatoon naa mu dimbali ma te yàlla tax waaye nag bi nga xamante ni seq nag ak ku jigéen ba ku jigéen kooku yàlla dogal ma takk ko indi teg ci kër gi yaakaar ne kat kuy sonn cib sëy am doom bu góor looloo nga doon ñaan toog bay wàcce say këlli goro ci sa digg ëtt waaye tey jii sama goro boobu tey nekk xale bu ndaw ànd naa ki mbokkam def na nangam sama doom sama doom wan na ma ginnaaw sama doom gisatuma ko sama doom déggatuma ko sama doom xamatuma lu mu am ndax lan xëy na peut-être am na foo xamante ni jaar nañ fa moom ba mu doon loo xamante ni ñàkk tayef lay doon dina doon ñàkk tayef ci ñoom way juri di ko wax ndax nag lu soppeeku ci sa doom lu ne di nga ko xam lu wàññeeku ci sa doom di nga ko xam lu ca yokk itam di ko xam te nag doom ji nga xamante ni yar nga ko ci mbaax yar nga ko ci njub yar nga ko ci mu aw fa la neex déggal la du sëqat du ne wow na du ne tooy na bu ay waajuram waxee mu ne waaw bu ñu teree mu bàyyi kooku boo wëlbatikoo ba mu mën a taxaw di affronter ay waajuram war ngaa mën a jàpp ne sa doom ji la mu nekkee woon ak la mu doon bokkewul te nag olof Njaay nee na tombe moo waral ay gaaf ki nga xamante ni moom moo ñëw ci sa kër gi sëy si euh, te xëy na peut-être loolu dolliwu ko sëy si ci kër gi xëy na de euh, saxalul jàmm jooju nga xamante ni moo am lu dul mu ñëw mu tombeek euh, xëy na boroom këram di doomi soxna si mel melokaan woo xamante ni doy na waar dañuy daal di jàpp ne soxna si mooy ki nga xamante ni moom moo ko waral te nag buñ ko seetee ba seet ko kër goo gis en général ñu ne ab sëriñ fa dëkk tàkkusaan walla guddi ba nga toog jàkkaarloo buntu kër ba ba xool ni nga xamante ne noonu la fa gone jigéen ñi nekkee da ngay daal di xam ne jàpp nañu ne sëy bi moom lenn rek moo ko war a mën a defal mooy bind maas jàmb euh, suul dës loolu mooy li nga xamante ni moom moo war a mën a defar sëy bi te nag dafa nekk loo xamante ni dafa éphémère dafa gàtt gàtt na gàttaay boo xamante ni ku ci sukkandiku xëy na peut-être ba di ko sëyee di nga dugal sa bopp ci loo xamante ni ëllëg di nga dóor sa loxo ci ëkk kon dafay jaadu mu nekk ay fee yoo xamante ni dañ ciy delloo si waat xel yi xale yi te xam ni am na loo xamante ni boo ko attanee ci diggante ndey ak doom bis dina ñëw yàlla dina la ko fay ki sa doom te bu boobaa di nga wér jooy ñu jël ki ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum asalaam. soxna maa ngi sant yàlla bu baax sama sëriñ. yàlla yàlla dolli jàmm. allahumma amiin ñu bokk ko. alhamdulilah rabbil alamin kii di wax ak yow la Jibi Sow la garaas Benteñi. Jibi Sow. waaw Jibi Sow garaas Benteñi. Benteñi Jibi da nga bëgg a participer. waaw dama bëggoon participer si waxtaan bi. ay ca sëñ Jibi yow rek la ñuy déglu. xam nga nit ñi ndeysaan dañu war a delloo seen bopp ci yàlla. dëgg la Jibi. te li ñuy def nii lépp loo lépp loo si gis rek. Hmm. nuyoo woon na ci commencement bi. dañ koo faytoon. boo gisee ñu ne jigéen na na muñ. Mm-hmm. góor na di muñ. Mm-hmm. am na loo xam ne toujours day feeñ ci kër mais da war a gëmm. dëgg la. du lépp la ñuy jàmbat. Mm-hmm. du lépp la ñuy défendre. dëgg la. am na loo xam ne war nga si dem ba mu jeex am na loo xam ne da si war a dem tuuti lii da nga ko moom sa moroom moom lii. tey jii bi ñu toll nii jigéen ñaare góor ñu fi nañu moytu ak ak ñaar ñi ñan muy ak jigéen ak chauffeur. dëgg la. lu yéema la gis nga yàlla sutural la boole la jigéen ngeen nekk ci biir kër. Hmm. ormalal ko sutural ko amoon lu dul sa njaboot sa njaboot boo dee àllaaxira boo demee dañ la koy laaj noo yoree woon sa njaboot ci biir kër gi. dëgg la. nañu delloo seen xol ci yàlla ci seen xel ci yàlla ñu xool njaboot gi ci biir kër gi ñu uuf ko teete ko xamal leen lan mooy seen diine lislaam xamal leen lan mooy àddina. dëgg la. boo deewee tey nga dem si jàkka ja dañuy laaj la ndax yow doon nga julli dañuy laaj yow ndax yow koo yoral ak ku mu yoral. Hmm. saa yu yeewoo da nga war a jàngat si àddina xool ci sa bopp yal nañu yàlla dolli jàmm ndeysaan man ki maa ngi koy xelal nan dolli muñ nu xool li ci kanamam. ndeysaan moo gën mooy gën a neex li mu def si gën yi baasi si gannaaw. incha allahu taala. na dellu muñ. incha allah mu ànd ak xelam. Hmm. delloo xelam li muy wax nag man bu ma sañoon wax ju bari sax ko du ko ci fekk delloo waat ci gannaaw tuuti. xol bee fees xol bee fees yàlla dina ko dimbali doole doole salaatul faate yàlla dina ko dimbali maa ngi ñaan jigéen ñi nag ñu baal ak baal naa leen ak jigéen ñu baax lañu xale yi ñu baax lañu réew bu amul jigéen amul xale bu mm. amul semence jigéen ak xale dëgg la newul si yow ndeysaan yàlla ñu yàlla dolli jàmm allahumma amin allahumma amin ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Sow Poulo Euh, jibi euh, woote fii ci réew mi ñu koy ñaanal yàlla rek jàmm ji mi ñaan yàlla na ko yàlla def ñun ñëpp ñu bokk ko euh, gis ngeen ko na delloo si waat xelam wax ji sax matu ko la wax ma ne ko nag waaye xol bu feesee tuuru tey nag jàpp na ne li nga xamante ni moom moo dal doomam ci ni mu waxee ak ñun jàpp na ne doom aadama moo ko teg jàpp na ne nit ci wàllu boppam moo def loo doomam loo xamante ni dafa tëlbati boppam moom ci wàllu boppam bu ngeen ko déggee ci biir waxam itam wax na ne c'est pas la première fois mu def ko yàgg na ko def waaye nag euh, dafa laal xale bi ay mbiram euh, euh, jóg mu mel ni que am na sax koo xamante ni woon nañu ne ma man tamit def na ko sama doom yàlla rek xam fan la dëgg gi nekk mbokk allo. oui. asalaamaaleykum. soxna si na ñu ngi sant yàlla. waa Mbaye damaa bëggoon participer tuuti ci émission tur bi naka la ak fay Espagne laay woote waaye damay yëg tur bi. lebal naa la ko. wala xam nga affaire bi dafa xaw a louche. waaw dafa louche. ndax ndaw si. man yaay xale bi duma ko mën a critiquer parce que man njaboot laa. waaw mun nga yokk kàddu gi tuuti soxna si. waaw. c'est parce duma ko mën a critiquer parce que man njaboot laa. mais am na fenn foo nga xamante ne nii dama ko ci doon dool du ma ko dolli moom kese maanaam message la bu may joxee rek. pour ñëpp ayca na ñëpp ñëw jë na ñëw ñëpp jariñu ci. parce que <laughs> parce que xam na man man sama man moom dama pas personnel. Hmm. xam naa ne man sama njaboot su ma ju su ma fekkoon tanoon keneen dafa ñëw man ci sama jëm bopp rek. Hmm. su ma leen joxoon ay gàllaaj di leen ko def loo ñoom duñu ko def loolu moom xam naa ko man. sa njaboot. sama njaboot man sama jëm bopp nga xam ne maa leen jural sama bopp. Mm-hmm. su ma jëloon ay gàllaaj du leen ko joxloo moo xam luy wàññi nit la moo xam luy jëriñ nit la. Mm-hmm. su ma leen ko joxoon pour ñu koy def duñ ko duñ ko def. ndax yar ba la. waxuma laa nag keneen di leen ko def loo. Mm-hmm. est-ce dégg fi may waxee. maa la dégg. waaw kay xam nga man tamit da ci am importance. éducation bala dañoo war a yar xale yi ci lu demee noonu. Hmm. parce que tamit am na la ma xamante ne nii bu fekkente ne yow sa doom da lay gis yow nga koy def. Hmm. su ko ko keneen di def loo day yaakaar ne loolu lu koy jëriñ la rek. te bu ci yaroo tamit loolu daf koy miin. dëgg la te nag dafa nekk loo xamante ni indi bi fu ne lay. suusee yaa waaw kay léegi tamit mën na am tamit xale bi mën na am sax ne ndaw si du jubluwu ci woon pour lu koy lor. dëgg la. mais mën na am tamit mu ndaw si di ko def loolu loo xamante ne xëy na bu fekkee nit lañ koy def. Hmm. ndax man dama du ma jéem a xuus ci biir bu baax parce que duma ci am preuve bu ma leer rek sama bàmmeel rek laa toog. dëgg la. su fekkente ne da ko doon def loo keneen ko nga xam ne ku leen ëpp bokk la wala luy wàññi kooku nit la. Hmm. loolu mën naa wëlbatiku tamit ci xale bi. Hmm. ñaareel ba tege ci tamit ki nga xam ne moom dañ koo tuumaal Mbaye. waaw nit ñi dañu war a. allo allo. ndeysaan ma koy jégalu bu baax a baax bëggoon naa dégg li muy ka xamante ni euh, dana ko wax ci ki ñu tuumaal euh, mu nekk nit loo xamante ni metti na ko lool ba mu ñëw bi ñu toogee jooy na ndeysaan ba sonn. waaye nag ni ma ko waxee rek yàlla mooy ki nga xamante ni moom mooy leeral yàlla mooy àtte donte nag dafa nekk loo xamante ni comme émission kër gi ndey ji seex la njaaxaanaay lay tëddee dañu jël lépp rek teg ko ci taabal ji su ko defee nit ñi ñoom ñooy juger seen bopp nit ñi ñooy àtte seen bopp tolluwaayu mbir mi ñu xool itam fi nga xamante ni fa la erreur ba nekk ndax moom daal nee na dimbali xale bi ak jàppale xale bi moo ko taxoon a jóg kóllëre gu yàgg la du c'est première fois mu def ko te it nag lu ne defal na ko xale bi xale bi nekk na koo xamante ni ku wérul la nee na loolu la jàpp ndax euh, seen famille noonu la ñu mel yaayu xale bi nag jàpp na ne euh, bi doomam duggee ak moom noonu ci la ko loolu dal euh, papay xale bi itam jàpp na ne bi doomam commencé dem foofu ci la ko loolu dal dëkkandoo yi mbokk yi ak xarit yi ñoom ñëpp kàddu gi benn la ba ci démb ci minuit ay nit a ngi oo di indi firnde ci kaawu ki nga xamante ni moom mooy Chérif El Walid ñuy traité ma wax leen rek yombul nag ni ñu ko dundee ci semaine bi nag ndax nekk na loo xamante ni lu diis la nekk ay polémique ku nekk di woote fii ku nekk di indi sa xalaat fii waaye yàlla moo mën a seddal rek te yàlla moo mën a leeral na ma ko waxee soxna si mu ñëwee ci man que yàlla mi xamante ni moo mën a leeral yëpp na yàlla ànd leeral euh, kaaw ki nga xamante ni mooy shérif waaye nag liñ ci gën a yitteel surtout bu fekkonte ni woon xale bi mi ngi ñu toog ñu di ko faj dina wér du wér sax à mais actuellement shérif fan la nekk actuellement shérif ci lu mu nekk actuellement naka la ñuy def ba gis ki nga xamante ni moom mooy shérif defe naa ni loolu moo doon li nga xamante ni moom moo ëpp solo te moo doon li nga xamante ni moom mooy kóllëre gi gën a sax ndax mënuma jàpp ne kóllëre am na ndax lu ñu xës ba médiatiser wax naa leen ko thème bi nekk jaar na euh, Canal Info ci Gagne Série waxtaan nañ ci ak Gagne Série jox nañu xalaatam ndax ni ma leen ko doon waxee rek ñun ñëpp benn bopp lañu kenn mënu koo xar ñaar jaar na ci moom bi mu fa jógee dem ci déggéen déggéen na ko yabal 2STV kon émission yi nga xamante ne dañ koy def ñun ñëpp dañ ci boole suñu doole waaye nag liñ ci gën a yitteel mooy naka la ñuy def ba récupérer xale bi xale bi ci wàllu boppam fi mu toll nii lan lay dund fi mu toll nii ci lu mu nekk parce que nag du ñu topp foot bi sulloo na ko liggéey wu ko liggéey naka la ñuy def ba liggéey boobu nekk ko moo ko ko def wala tuuma la wala du tuuma man je crois que li ci ëpp importance mooy bu fekkente ni kóllëre gi ñuy wax xëy na peut-être nekkoon nan nekkatul ndax médiatiser nañ koo ba pare xol yi xaw naa jóg dënn yi tàng nañu kon kenn ku ci nekk amatoo looy suturaale sa morom amatoo itam kóllëre goo xamante ni yaa ngi koy sàmm ci sa diggante ak sa morom waaye nag dama ci jàpp rek ne kenn ku ci nekk war ngaa mën a def sa kéemtalaal kattan ba xale bi nga xamante ni moom la ñuy wër muy Chérif mu nekk xale boo xamante ni dinañ dem ba teg ko bët bu boobaa buñ ci jàppee pour mu faju bu boobaa buñ ci jàppee pour mu xelam dellu siwaat lépp ñu def ko ci ndax nag am na ay nit ñoo xamante ni tegtal nañ ñu leen ci cas yu demee noonu ak cas yu mel noonu ba tey ji sax am na ci yenn ci cas yoo xamante ni fas nañu yéene boole leen ak kooku ndax la ñu gis ci moom doy nañu su ko defee mu jàppale leen ba seeni doom dellu siwaat seeni loxo mu mel ni que nag am na benn appel boo aussi boo xamante ni dama koy lancé ci femme bi nga xamante ni moo ñëwoon sama kër ni ki euh, ci biir semaine bi euh, te dëkk Nord Foire am même Euh, am koo xamante ni daf ko bëgg a jàppale te yàlla tax ma koy ñaan rek soxna sos su fekkee mi ngi may dégg numéro am daf ma réer ma jokkoo ak moom mën ko boole ak ki nga xamante ni moom laa ko war a booleel su ko defee rek euh, mu jàppale ko ci doomam jooju mu nekk nag ay mbir yoo xamante ni mbir yu doy waar la gis ngeen amuñu temps pour dugg ci détails yi ci jeeg ji sëy ñëw fekk koo xamante ni euh, dafa nekk benn ak ak njabootam njabootuk ndeyam nga tàggale leen ànd ak moom ne meng dem te tegoo ko lu dul sa naf su bakken tegoo ko lu dul ci bind ak maas jàmb yooyu yëpp dafa am jeeg bi sëy si ci biir kër gi itam te fas yéene toog nga dee cim kay te ne ko dinaa la dóor te sama loxo du la laal ndax nag bëgguma nga sëy fii ci kër gi bokkuñu waaso bokkuñu xeet wala am na ku ma loon sama doom wala am na ku ma bëggaloon sama càmmeñ man gis naa koo xamante ne sax dafa bàkku ne jabaru càmmeñam maa ngi lay kitaabul ne kër gi ëtt bi doo fi boot doom mukk ci fan la ko teg bind ak maas kon na nañu waxtaan ci waxtaan la woo xamante ni nag rendez-vous lañ ci lañ leen ci jox suba incha allahu rabbi su ko defee ñu dellu siwaat ci àndaat ak yéen lépp nag nit ñi delloo siwaat seen xel te xam ni yenn yi àdduna jaru ko fi te nag ku noppal sa bopp boo tëddee da ngay nelaw waaye am na ci loo xamante ni boo koy dund ki sa bopp boo sàggantul nit ñëpp dinañ nelaw nga fanaanee cëpp-cëpp tey it nag dara du la ko teg lu dul xëy na peut-être la nga yaakaar ne mooy dund àdduna te fekk na booba bokkeewul ak àdduna dara kon mbokk yi rendez-vous incha allahu rabbi suba ñu dellu siwaat fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar ci biir seen émission kër gi comme ni ñu amee habitude di ko def jaajëfal ñëpp nuyu ñëpp gërëm ñëpp sant ñëpp tey di wax rek yàlla yàlla nañu yàlla may fanaanum jàmm ba suba ñu dellu siwaat ci kattanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf ah. téléspectateurs d'Europe, abonnez-vous à 2STV en achetant les cartes V-Access auprès de nos revendeurs agréés. En Belgique,